mbokk ak xarit yi ñuy seetaan ci Sénégal TV dal leen ak jàmm ci seen revue de presse quotidienne politique dañ koy dooree ak Tahibou Ndiaye mi nga xamante l'observateur da ko fësal ci xëtam bu njëkk Tahibou Ndiaye nag ku ne boobu dafa mujjee indi jaxasoo ci biir tribunal bi parce que nag bi dafa am ñu xamante ne ànd nañ ci waaye am na ñu xamante ne ànduñu ci parce que nee nañ day mel ni kumba am ndey ak kumba amul ndey moo mujjee am ci biir justice sénégalaise bi. l'observateur ba tey ci xëtam bu njëkk mu fësal gouvernement Abdoulaye Wade bi nga xamante ne moo fi nekkoon ARMP nag mi ngi continuer ba tey di def ay auditam ci loolu nag ñu daal di fësal Senelec Souleymane ne Ndiaye mi nga xamante ne dafa autoriser ab marché de 3 milliards de francs fa Au Boubacar Boubacarba moom a na t-shirt et ay casquette qui valeur bu toll 15 millions de francs CFA Lonase Bailawan moom mi dafa jënd stylo et ay porte clé ci valeur 10 millions de francs CFA waaye nag Tambacounda moom ñoo xëdd kaaba gi ndax nag maire ba dafa jël un marché de 500 millions de francs CFA d'aller di ko confier à ben commerçant. tojange nguuru Ablaye wad nak yemul foofu parce que le populaire dafa continuer di ko fësal ci xëtam bu njëkk euh, ARMP nag ma ngay wéyal enquête ba bàyyi nag hôpital principal ndeke luubal ba foofu la ëppee APIX nag waxi noppi waaye ADMP mom kenn waxaalewu ko waaye nag assemblée nationale moom nee nañu nag du leen laal kenn du leen audit maanaam la tribune ci une bu njëkk mu fësal Mamadou Seck mi nga xamante ne dañ ko woon ci traque gi bien mal acquis Mamadou Seck moomu nak euh, woon nañ ko ci wàllum AHS AHS nak boko ko déggee moo jiit bi nga wàllum aéroport bi waaye Mamadou Seck moom ba ñu ko woowee dafa daal di seetal boppam wecci takkal ki ne moo di Karim Wade Karim Wade ne ma nga biir rëbës ay mbokkam ak xaritam ak i jege ñaaleem di dem chaque jour di ko seeti kii di Alioune daal di soldaalam dem di seeti ki nga xamante ne moo di Karim Wade waaye ba mu yeggee Karim daal di fi ko ne ñamaatal say tànk nga dellu fa nga jóge woon ndax nag man du ma hypocrite ndax nee na Alioune Tine moomu moo fexe ba nguuru papaam jóge fi donc nag Alioune Tine warul ñëw ca prison ba naan day seet si ki nga xamante ne moo di Karim Wade

société dañ koy door ak l'observateur bi fësal ci xëtam bu njëkk kii di Alioune Sow Alioune Sow nag mi ngi ñëwaat ci jaar-jaaram nee na ba mu nekkee xale moom musta tux cigarette musta naan sàngara waaye musta teg tànkam fii nga xamante ne moo di boîte Alioune Sow nag nee na la mu nekk université ba na mu fa jógee benn xale bu jigéen la fa mës a génnal waaye nag dellu siwaat na ci lii diggante mag Ami Samake mi nga xamante ne moo fi nekkoon jabaram waaye nag nee na diggante mag Ami Samake léegi nekk na lu xamante ne jeex na maanaam tourné na page bi am na beneen soxna donc mi ngi ci yeneen biir bugg ci sax ñëwaat di ci wax ndax ndax nag dafa respecté jabaram bi nga xamante ne moom la nekkal populaire ci xëtam bu njëkk mu daal di fësal kii di maire de Dakar Khalifa Sall mi nga xamante ne dafa amaloon visite fee ca Touba daal di dem seeti ki nga xamante ne mooy porte parole du xalif général des Mourides euh, ba mu demee nag euh, daal di na ko dalal dalal bu rafet ñu toog waxtaan Khalifa Sall nag xamal ko ni kontaan lool ci jumaam Masaalikul Jinaan bi nga xamante ne moom la ñu tabax Dakar mu ngi koy xamal ne ko nag jumaa boobu lépp lu xamante ne rek mën na ko dina ko ca def bu soobee yàlla ba muy yegg ak jàmm mu ngi wax tamit ne ne jumaa boobu bis bu yeggee dina indi ci wàllum koom-koom lu bari bari ci réewum Sénégal waaye nag Serigne Bass Abdou Khadre jaajëfal na ko daal di kontaan lool ci visite boobu nga xamante ne amal na ko fee ci Touba. waaw mbokk ak xarit yi seetaan du ñu def lu dul dikk ak yéen seen xibaaru xew-xewu jamono. populaire ci xëtam bu njëkk mu fësal nag jàppante ya nga xamante ne démb moo amoon fee ca marché Castor démb nag euh, marché Castor tàngoon na lool parce que ña nga xamante ne ñoo dëkkee foofu nee nañ nag marché Castor daf fay jóge parce que ñoom dañoo sonn nag ci coow yi kenn mënu faa noppaliku donc li ñu bëgg rek mooy marché ba jóge fa donc démb jàppante yi metti woon na loolu ba police sax dafa mujjee ñëw waaye nag nee nañ mbir mi du yem ndax bu ñu jógee Castor affaire bi day continuer dem ba marché HLM. mbir mi nga xamante ni dafa doy waar loolu nag tribune yéenekaay moo ko fësal ci xëtam bu njëkk loolu nag nekk na lu xamante ne ku ko dégg rek da naan tës. ab xale bu góor la bu doon joteeg benn moromam daal di dagg li nga xamante ne moo di ñetti baaraamam la daal di dagg ba ñu ko yóbboo nag tribunal. xale bu góor boobu nag dina tëdd ci lu tollook juróomi ati waaye nag dina jox ki nga xamante ne moom la dagg ay baaraamam ndàmpaay bu toll ci fukki million léegi nag mbokk yi duñu def lu dul wéyandeeg yéen seen xibaaru tàggat yaram tribune sport ci xëtam bu njëkk mu fësal suñu gaynde yi nga xamante ne dañoo war a jaamaarloo demi-finale ak ñi nga xamante ne ñoo di Égypte waaye nag ñoom ak Égypte ku ne xam ñi daje woon nañ ci biir match de poule yi waaye nag Sénégal daf ko mujjee woon dóor li ci am solo nag mooy gaynde basket yooyu bu ñu génnee ci seen match bi ak Égypte dañuy daal di am billet d'avion pour nag mën a bokk ci coupe du monde 2014 bi nga xamante ne moom la ñu war a amalee fee ca Espagne. ba tey ci wàllu sport sunu làmb fësal ci xëtam mu njëkk nag ñetti mbër yi nga xamante ne ñoo gën a xarañ ci saison bi 2012 2013 ki ci njëkk nag mooy Balla Gaye mi nga xamante ne moo fi daan tafaatin mi nga xamante ne ñëpp xamoon nañ ko ci ay dóor te kenn mësta xalaat ne Balla Gaye war na koo mën a daan Balla daal di ko fekk ci li mu mën. daal di ko dóor daan ko waaye nag ki ci topp mooy Malick Niang Malick Niang ku ne xam na ni moo daan Sa Thiès nga xamante ni mës ta dégg mu ñël waaye affaire bi yemul foofu de guy gi nag moo jël raw gàddu gi ndax dafa ñëw jaar ci kaw ki nga xamante ne moo di nees dafa ñëw indi 145 kilos ñëpp daal di yaakaar ne guy gi du mës a daan nees guy gi daal di néew dóor nees jaar ci kawam daal di jàll mbokk ak xarit yi ñuy seetaan egsi nañ nag suñu cappaandoo revue de presse quotidienne waaye nag laata ñuy tàggatoo ak Mbagnick Ndiaye kii di ministre des sports nag ku ne xam na ñi ba ñuy tabb kii di Augustine Senghor bi nekk ci bopp fédération de football sénégalaise bi Mbagnick Ndiaye dem na ba foofu ba mu demee nag mu wax leen gis-gisam ci fédération euh, de football sénégalaise bi mu daal di leen wax ne xaalis bi ñu ciy def bari na loolu te boobu ba léegi nag gars yi amuñu benn résultat te ñeneen ñi ñu ngi continuer di am ay résultat Euh, Mbagnick Ndiaye ba mu waxee na gis-gisam ci affaire bi gars yi dañoo jug daal di dal ci kawam dal di ko sonal lool ba dañ ko mujjee jël rawale ko daal di ko yóbbu ndekete yoo la gën a garaaw ci mbir mi mooy ñoo ñu doon euh, jug bëgg a songu kii di ministre Mbagnick Ndiaye ñoo ñu avant Augustine di fanu ñoo daan dem ci biiroom di ko wax ni ko dañoo bëgg mu jëlee Augustine Senghor ci bopp fédération de football sénégalaise bi ndekke nag ci biir fédération bi dafa am ñu xamante ne dañuy màtt di ëf mbokk xarit yi ñuy seetaan lii lañ indi indiloon tey ci seen revue de presse quotidienne xanaa rek di leen jox dig daje suba incha allah waaye nag laataa may jeexal damay jaajafal équipe technique bi nga xamante ne ñoo ma gunge woon ku ci mel ni Asbara Fall ci réalisation bi waaye Moussa sekk ak Omzito bu ñoo nekkoon ci caméra bi di jaajëfal tamit Marema bi nga xamante ne mooy suñu assistante donc merci à tout le monde et à demain allah